konoon na ci liste non mënul nekk li mu am nii na ci sant yàlla te toog fa mënul am lu weesu lii. am na ñuy contesté li nga xamante ni moo di Barthélémy Dias bi nekk tête de am na tamit ñuy posé ay question ci li nga xamante ni moom moo di euh, inéligibilité bu Ousmane Sonko ak ki nga xamante ni moom moo di Barthélémy Dias. mais ñu ngi xaar. façon ñi ngi xaar réponse bi ci conseil constitutionnel na gis naa euh, Walf defoon na ci benn poste sànq gis naa gis naa ñun ñu apporté ci ab démenti euh, donc ñoom déjà dañoo dañoo woon on peut dire li nga xamante ni moom moo di résultat yi war a tukkee ca conseil constitutionnel nee nañ la rédaction de Walf Net présente ses excuses à ses lecteurs et à monsieur Barthélémy Diaz pour avoir publié que le conseil constitutionnel avait invalidé la candidature de ce dernier aux prochaines mais tamit am na ay ay ñoo xamante ni ne dañuy xaw a jege nguur gi ci ay presse daan nañu wax dara dindi ko après ñu gisaat loolu dañuy wax dindi am information wax dindi ko après la ñu dindi doon dëgg. maanaam annonce pour. annonce waaw waaw pour PC. waaw pour maintenant on attend de voir ce qui va passer mais daal li ma la mën a wax mooy jeu politique bi actuellement. doy na waar. mais euh, candidature baax Diaz bu ñu ko invalider. Hmm. candidature Ousmane Sonko nu mu war a dem. dañ koy invalider <laughs> loolu c'est-à-dire xam nga tey ñu ngi toog di xaar mais am na loo ne nii bu ñu liree droit kese duñ ko appliquer ñi di jooy dina bëri dinañ bëri de kooku man maa la ko wax. parce que ñu ngi ciy xaar li nga xamante ni non di ma koy bu ñu dina bëri moo tax jeu bi garaaw xanaa xamoo ne même génnu El Malick bi démb c'était pas gratuit. seen génn yi ñuy génn c'est pas gratuit c'est pour ternir l'image des opposants mais ñoom s'ils disent que ni il n'y a pas d'opposants dans ce pays s'ils disent aussi tamit que ni euh, jàpp nañu ni ñoom dinañ am majorité confortable à l'Assemblée pourquoi ñu ñu am seen réaction yi mais il faut ñu def ko ñoom ci leneen lañu ñuy basé wu yàq deru ñiy diriger woon ne ay sàcc lañu dañu luubal loolu la ñuy def di leen intimider di leen menacer. waa sàmm sa kàddu gis naa la ñuy joxeñ baaraamu tuuma ànd liggéey suñu réew nee ñu ñoom ci list proportionnelle comme yi nga doon wax ni léegi ci yu Pastef créé ci lañ bokk. et que ñoom tey jii euh, peut-être ñee ñoo bëggoon invalider indirectement à travers ñoom li nga xamante ni moo di candidature Barthélémy Dias. mais yow non dama ne la yow élection yi di nga gis lu yéeme sax mouvement yeeg yenn yi di ngeen xam nu mu demee ba léegi Sénégalais yi ku si ne booy voté di nga am de ce qui va se passer xanaa déggoo li ma la wax diviser pour mieux régner pour avoir le maximum selon euh, mais avec intelligence Ayib Daffé nag moom li ma qualifié li nga xamante ni moom moo di invalidation wu euh, Sonko bi parce que euh, muy en tout cas le désir de certains nee na cette démarche de recours mu ne c'est une démarche mu ne mu ne cette démarche de recours de délinquant en tout cas recours de délinquant la ko qualifié il il a qualifié plutôt cette démarche de recours de délinquant mais xam nga Sénégal moom Ayib Daffé de l'arrogance c'est-à-dire que wax war nga ko mën a. ba pare tamit nee na nee na nee na lu numel du am benn succès alors lu ni mel tamit nu mu ko mën a waxee moom avec autant d' assurance. sachant que le conseil de statuer mais mais mais il le fait politiquement ah moom tamit day politique il faut il faut ñu nangul ko. mais mais ni mu ko waxee. ak temps bi ak temps bi c'est dangereux c'est-à-dire si si si si ji nga xamante ni. waaw ñenn ñi am na ñu gis ni la woon ci wàllu justice moo fi am ba tey. non mais mais dama ne la moo tax ma la xam nga affaire yi moom ay acte la rek dañuy poser ay acte rek ngay retenir ba ñu egg fenn fi nga xam. lañ daan wax démb ci justice bi. Mm. am na ba léegi am déet. d' accord alors fi ñu daanalee nag grand Omar tuuti nee na ma xaabaabal naa def naa. Euh, une heure ak lu teg oui wax ci euh, moom nag démb ki sortem bi wax na ci ci AIBD gis naa nga def ci benn vidéo mais dama bëgg nga leeral ci li nga wax ci lu mu wax ci ay AIBD ci yu ñu jënd am na daal terme ñu. tellement oui. réew du arrogance réew du ay menaces maa ko déglu mu wax. mu ne AIBD la fa am jéggi na dayoo mu ne ay chariot yu ñu jëndee de huit milliards à vingt trois milliards xam nga yow bu ñu waxee chariot rek looy xalaat mooy yi ñuy considéré comme pousse-pousse def ci bagage dem noonu la defee déclaration te li mu xamul mooy. marché bi muy wax du marché estampillé secret défense. Mmh. marché militaire la. marché militaire la marché militaire te marché militaire bu amee militaire da koy signé c'est-à-dire tey li mu wax ci ay AIBD ci marché bi mu wax ci matériel handling boobu mu wax cest à tey marché boobu tey bu amee. ki koy signé mooy général de division de l'armée de l'air parce que aéroport le secret vital euh, euh, euh, secret militaire la maintenant marché boobu bu amee ki koy approuvé mooy ki nga xamante ne mooy directeur AIBD ak directeur Air Sénégal moo tax ma xamal ko ne ko xamul sax la différence entre secret d'État et secret militaire attention nañu xool li ñuy wax on avait huit milliards pour l'achat de matériel handling pour AIBD ñoom ñu ne bëgguñu yemale foofu dañu bëgg matériel boobu comme que ñu ngi tabax ay aéroport partout dans le Sénégal mais ñu yóbbu fa matériel bi moo indi ce montant de 23 milliards bul fàtte ne am na ay aéroport ñu ñuy construire ci dëkk bi mais ñooñu dañu am matériel loolu moo indi 23 milliards mais moom dafa yemale ci marché bi de 8 milliards à 23 milliards comme si yow c'est un marché fictif c'est dangereux ce qu'il a dit. d'accord parce que man mënuma nangu un ministre quand un ministre. bu tollu à ce niveau te du am toutes les information requises pour mën a jàkkaarloo ak askan bi expliquer beneen bi bu ma koy interpeller dama bëgg yow El Malick Ndiaye le ministre des infrastructures dégg naa la nga cité le ministre des infrastructures Doudou Ka mais li ma bëgg mooy ci contrat bi yow El Malick Ndiaye dama bëgg nga wan sénégalais yi fan la Doudou Ka contrat fan la approuver contrat wala fan la fayee contrat bi. ndax moom la cité. d'accord donc yooyu. oui non non non déglu rek mun a chariot yi mais chariot Sénégal yi dama bëgg ñu xam chariot dafa am chariot yoo xamante ne assistance de sol la mooy assistance su passager yi mooy yi ngay jël di tukki nga ñëw fekk aéroport benn chariot nga jël ko teg si sa bagage. yóbbu ci biir mooy assistance de passager mu am assistance d'avion chariot yooyu mooy oto yi ngay gis ci biir aéroport bi ci biir biir fi avion bi nekk muy transporter ay marchandises di transporter ay bagages gis nga gis nga gis nga étage boobu nga gis noonu. Mm-hmm. muy taxaw kooku day taxaw ba social. nga nga kër si avion bi nga xam ne danga nga ciy yéeg. président di si yéeg boobu xam nga lan la. boobu matériel handling la tey le président de la république buy tukki foofu mu taxaw kan ma fa war a nekk du militaire day bàyyi civil yi ñu fa taxaw bu ñu takk bu ñu ko takkalee benn bomb nag xaar président di yëg fa ñu moo tax ma ne ministre buy wax na am retenu d'accord te il n'a pas fait la différence entre ces chariots ak chariot yooyu moo tax sénégalais bii di dégg nag buñ la waxee chariot rek da nga naan ñii mais ñii vraiment ñii mi qu'est-ce que mais ñi yàq nañu réew mi yàq nañu euh, sàcc nañu suñu xaalis def nañu lii or expliqué wul carrément de quoi il s'agit moo tax ma bëgg. mu am retenue. d'accord. Penda nañ am retenue sur les marchés estampillés secret défense ak secret militaire. d'accord buñ siy waxtaan nañ ko waxtaan waxtaanee ci biir néeg. c'est important mais nañ bàyyi di ko wax ci mbedd mi. d'accord. waaw Omar et c'est important. ça a été plaisir yow euh, xam nga sama jëna yow du ma sax bëgg waxtu bi jeex ndaxte euh, li ñuy waxtaanee euh, je suppose que day neex bu baax en tout cas suñu internet yi nga xam ne luy suivre donc di la bàyyi nga tàggatoo le mot de la fin. Penda maa lay gërëm. maa ngi lay bu baax. la sant te ñu xam ne nous serons trop regardants ci képp koo xamante ne tu es à de ce pays lii nii defuñu ko muy tey. def nañ ko juuf def nañ ko Wade def nañ ko Macky ñii nag la yàlla jox réew mi act bu ñu posé bu baaxee dinañ ko wax act bu ñu posé bu baaxul dinañ ko wax te la ñuy wax ci ñoom nag mooy ëpp la ñuy wax ci opposition parce que ñoom ñoo jiite réew mi loolu dama bëgg déjà ñu ñu xam ko ñu ngi dem ci élection mu élection yu am solo dama bëgg ñaan sénégalais yi ñuy xool liste di xool profil bañ a voté liste ngir nit mais voté liste ngir prise de conscience bi tax ngeen yóbbu Pastef à 54 pour cent ñu gagné élection yi cette même prise de conscience war na leen pousser ku nekk si sa localité ba nga dëkk nga xool sa ñafane ne nga yaakaar ne dëggantaan boo ko votalee boo demee assemblée dina dina soxla si la nga ñoom dinañ ko def. d'accord loolu daal mooy message yi nga xamante ni moom laay kii. di la gërëm. di la sant di gërëm sa équipe bi fi nekk yëpp. Mm-hmm. di gërëm tamit ñëpp ñi nga xamante ni ne. Mm-hmm. ñi ngi seetaan Sénégal set ba beneen yoon. jaajëf donc c'était ba Batchi euh, grand is également yéen ñëpp di leen jaajëfal bu baax a baax te it di leen jox euh, dig dëgg ci yenn i plateau jërë ngeen jëf